asalaamaaleykum sunu mbokku internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm seen rubrique seen actu du jour rakku Marième Faye Sall soxna Macky Sall nee na dafay présenté wu ci meeru Grand Yoff ci Sénégal 7 Adama Faye mi ngi xamle ni avec ou sans Macky dina demal boppam ci local yi ci fàttali Macky dafa ni woon képp kuy àndandoowam du demal boppam ci. élection locale yi ñu jëm listu Benno Bokk Yaakaar la ñëpp di ànd. Dinaa Fall bu Gazali fas yéene na nekk meeru Géejawaay mu nekk ci liberté provisoire gannaaw ba ñu ko toppee ci coowal phobie ci biir Dakar matin mi ngi xamle ni doomu réew mi la te am na fi ay ndombal tànk yu bari ci jamono PDS ak AP e. Macky waxaat na ci mbiru góor jigéen ñi ci cëy Dakar mi ngi xam ne ni lu ni mel kenn du ko mës a légaliser ci biir nguuram mu doon dalal ay associations religieuses comme rassemblement islamique du Sénégal Macky mi ngi xamle ni sunu réew dafa am ay valeurs culture ak civilisation yoo xam ne loi bi. xibaar bu bees la ñu gis fële ca Kayar ca Thiès. biir buy daw ak wàccu nag lay àndal ña fa dëkkee nag ñi ngi joxoñ baaraamu tuuma usine bi nga xam ne daf fay defar lii di farine jën biir Sénégal seet mën ngeen ko fa gis. mu dellu si wax yi booy jinne ak las quotidien benn sërëm la. sûreté urbaine teg loxo mu doon nag bëggoon dugg fële ca biir palais waaye nag ña fa nekk di garde yi dañu ko daldi jàpp jox ko ñi nga xamante ni ñooy sûreté urbaine la naroon nag kenn xamagu ko enquête bi dinañu ko wax. benn bébé la ay taalibe gis fële ci Rufisque ñu def ko ci sachet sànni ko ci mbalit tey ci suba lañu gis lu ni mel Sénégal set mi ngi ñuy xamel ni bébé bi góor la woon. ginnaaw ba mu réeree ay mbokkam juróom-ñaari weer ci ginnaaw Rokhaya Julie Traoré feeñ na waaye anam gu ñaaw lañu ko gis ndax kooku di gone gu jigéen googu nag dañ ko fekk ñu rey ko L'As Quotidien di ñu xamal ne juróom benn at la amoon te fa ñu ko fekk mu di quartier bi ñu duppee la ma nga nekk fële ca Bignona ki jiite ñiy dund ak laago fële ca Jurbel teg nañ ko loxo ci mbirum jaayum drogue muy wuyoo ci turu AL Thioune nangu na ni moom moom moom huit maanaam juróom ñetti korne yamba ya ñu fekk fële ca këram benn clientam di ab vigile di wuyoo ci CCN moom lañ njëkk a teg loxo gannaaw bañ ko jàppee nag CCN dafa daali joxoñ ki nga xamante ni moo di AL Thioune daali ne moom mooy fournisseur am Sénégal 7 moo ñu ko yeggee di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah ci seen beneen rubrique seen actu du jour.